نبو نسنت سن بروم سبحانه وتعالى جل تيونتم بي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغي بالحق نيب تي بالحق نيب يالنا مو يالنا بوي جيغال ديلو دي نوكل جوليت ييب تي دامو يالنا بو ماغ ييغا خامني اي فنام ماتنا يالنا نو يالنا بوله تي ليم بامي نانغول te fekke loo waat na ko ay at yu bari te saa bu ñëwee nu man ko yàlla dara la ci jële fi lépp luy ak wéradi ak ñakk ak deewu xol ñu xam ne nag fan yooya mat na waaye dundug jullit bi lépp ak jaamu yàlla la war a nekk loola day joxañ bu suñu borom tam joxañoon foofu ca fan yooya waaye la ñuy rafeta njort ne yàlla mën na noo boole ca yi nangul lañ ca doon jànge nañ fexe ba buñ ko fëtt noonee ñu xañawoon suñu bopp ya nga xam ne ñoo ko moom yàlla daganal ko ci nun nu xañoon ko suñu bopp te yàlla tax na wéy noonu ñu demee woon suñuy gët ci xool lu ñu warta xool na wéy ba suñ cër yëpp man yàlla na nu yàlla jàppanda la jaamu yàlla jullit bi nag kon amut waxtu wu mu koy yokk bu waxtu ko jàllee mu wàññi ko amut waxtu wu mu koy gën a fonk di bàyyi weneen ndax kat bu yàlla xasee ba digle yàlla moom ci boppam tënkuwut ci ay waxtu tënk ci ay bis tënk wut ci ay weer tënk wut ci ay at tolloo naag nag ñun ñu ci tënku léeg-léeg mu joxoñ ñu fenn rek ne bu accès góorgóorlu leen moo xam lam ñu cay fay yàlla bum mu neen ñu xam ne jullit dëgg dëgg nag li ñu koy xàmmee yëmut rek ci weeru koor wi mu woor ko sàmmoonteeg lam ca war a sàmmoonte ba weer wi jeex rek mu joxe fa jaax euh, joxe fa naax saay déedéet dundam gépp daa war a doon ci moom weeru koor ginnaaw fekk na ko wenn yoon ba woor ko waaye mbub mi ñu koy xàmme it saa bu ñu ko xoolee doon ko gis ca koor ga dañ ko war a gis bu ñu waree yit mu sol mbub mu mel na moom sol ci koor ga kenn du leen xàmme kon jullit bi dëgg-dëgg dugg ci weeru koor mën naa tax mu yokk ay jaamu yàllaam ndax la ca yàlla dige waaye bokk yi lu nit tàggatu weer mat sëkk su weer wa jeexee munu ca dara mu yemale ko war naa xoolaat boppam yal nañu ci mu musal kon koor ga jeex na ak jàmm ay fanam waaye ay jeex itam dafa war a feeñ ci suñuy melokaan war a feeñ ci suñuy jëflante suñu boroom mi ngi wax ak yonent bi sallallahu wa sallam di ko wan am solo julli ba leeralal ko ba demee ba fitna am ana nu ñuy jullee waaye ba muy jeexal euh, aaya ba daf ko ne bu julli jeexee it du tax seen jaan wàcc ayca na làmmiñ wi tudd yàlla moo xam dangeen a toog wala dangeen taxaw wala da tëdd waaye yàlla yàlla moom bu dal bu mu jóg ci seenu làmmiñ موي آية دي وخنا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه جلك صلاه الخوف فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم دلو وخات لكم نور لول ني جامو يالا يموت بي سانغام يموت وير سانغام واي با با بنيت كي فاتلا ربك حتى ياتيك اليقين موم لا سيني بو ماك بي دي ليرال نان وفسروا لفظ اليقين باليقين في آخر الحجر بلا موtin yaay am na ñuy naan lañ doon wut ci koor gi am nañ ko ñetti xaaj yañ ko xaajoon rafet nañ njort ñoom ci ne daje nañ loola kon war nañoo mën a noppalu déedéet sëriñ bi ne waabud rabbaka xata yatiyaka alyaqin mooy tekki wut dee jaamu yàlla ba mu wóor la ne li nga doon def yàlla nangu na ko am nga la nga doon wut déedéet xata yatiyaka alyaqin mooy ba ba dee di dikk faagaagal la kon jaamu yàlla bokk yi moo ko dundub jullit bi ñooy ànd ku am xel ku nekk nag lu mu dugg ba génn ca war naa xool ba xam jekk na mu am ca dara wala amu ca dara ci suñ jamono danañuy gis léeg-léeg ci ci liggéeyu nit ñi ñu toog ba yàgg ñu xool nangami weer yi ñu weesu lañ jëmbatoon meññ na ñor na am na lu ñu xam ba xam dañuy dolliwaat wala dañuy wàññiwaat kon boog ku jóge ci jaamu yàlla ko ñuy toll na muy xame ne yàlla man na koo nangu loolu njàngalam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu fekkee xool na boppam gën a sawar ci jaamu yàlla xool na boppam gën a sawar ci mbooleem taxawaay yam doon taxaw ci koor gi ci dimbalee ci seeti mbokk ci jaala ji dem ca armelia bañ a tàng xam lu kenn ku naan dama yittewoo nangam ak lu ñuy ci jamono toll mu jaral ko jub su fekkee gën naa taxawe yooye mën naa rafet njortu ci ne moom kat la mu doon def jag na ndax cëram ya nañ ko ba jaxasoo nag dara kon bu ko bëggee tënk mooy nit di xame doon def jag na wala jagut su gënee sawar ci jaamu yàlla su gënee sawar ci saa buñ ne suba bisub koor la ku ku mën na ko woor mu fas ko yéenee woor te woor ci lépp lu yàlla tere te woor ci lépp lu yàlla tere ci ay déglu ko xool ko dox jëm ca laal ko wala dugal ko ci gémmiñam mu war a dem ci biiram jaxasoog yaramam kon yàlla na ko yàlla nangu sëriñ bu mag bi tënk ko ci yeenti bayit waabud rabbaka xatta yaatiyaka al yaqin nit du wàcc baba ba muy ku faatu moom ñu tudde ko ci waxinu jamono ji léegi di ko teggi na naan wàcc na liggéey wax nañ dëgg waaye lam doon liggéey yàlla na fekk mu la yàlla santaane woon rek su boobaa day tàmbalee gisu añam waaye su fekkee lam doon liggéey la ca ëpp am xelam daal la jiitaloon wàcc na liggéey ci caaxaan yal ci yàlla musal wa aamil al awqaata bin nawafili baada al faraidi bila tagaafuli suñ bu mag bi def ne boo defee farata ba noppi jaamu yàlla bu nekk am na naafilaam bu la ca genn raw koor naafilaam mooy koor toog ba mu neex la ba mu soob la nga fas yéene woor ñaari fan wala woor benn fan wala daal woor ba mu soob la ba mu des bisub korite gi ak bisub tabaski tekk mooy naafila koor wa hakada bi sawmi wal awraadi wa dhikri wal fikrati fi tamadi naka noonu it tudd naa ko léegi koo xam ne daa sasoo bis bu mu jàng nanga mi xisbi alquran su demee foo xam ne ab kaamil jëkku jëkkuwu ko fa te mukkul alquran ba mën koo tari nay tudd yàlla mooy wërd tudd yàlla nag bari na ay melokaan waxuñu nag dara say nopp di xaatu yàlla mi ngi koy mi ngay tudd boo ko déyee it ak bala nga koo déy sax dana ko dégg di ko wettali ko am na mag moom laa joxoon muñ xam ne ko ci loo ne mu ne ko maa nga ca la nga ma dégloon mu ne ka ko maa ngi déglu ndigal rek loo ma wax ma def ko bu mu noppee toog di dégluwaat mu ne ko yéen wut wuti na mag yéen fu ma nekk man de damay xëy ci farata yi di gontu ci sunna yi di dallu ci man du bàjjeeg mustahabaat kon kooku bis waxtoom amu ca lenn luy neen ku koy xoolit fu mu tegu tànkam boo fu mu teg sa tànk it mépp fa bañ xam ne mépp nga fa wa bi tasadduqin wa jazbi lmaali ila al lxaaji li wajhi al wali dëkke sarax ji ma doon junj léegi ci koor gi awma lu ma ndogoo awma lu ma xadde ku ko tàmmoon ci koor gi na xam ne koor gi jàll na waaye ñi fa doon soxla ba fi ni am na ci ñu ko gën a soxla tey te yàlla rek tax لا سيما فاضلة الأيام مع الأقاليد وبالعذاب روتي نك لمن ين ين فن ين خم ين ين دنج في دنج في شغلة أي ترانغا تمنينكو سين لقى جدنا سين كناو نفخة فخبا كتي بتم خنق ولا بلا بتم خنق boko xamé nga dimbalé ko ci sëriñ bi néna ci yeen ci bëyit yoon non la abdul tunde وأعمل الأوقات بالنوافل بعض الفرائض بلا تغافل وهكذا بالصوم والأوراد والذكر والفكرة في التمادي وبتصدق وجذب المال إلى ذوي الحاج لوجه الوالي لا سيما فاضلة الأيام مع الأقارب وبالأعظام لمن أمتن جه خيت فرطة قمت سنة دلت na ci مندوب ak mun أي du bind waaye dama cee jël buñ miin am na téeréem bu ñuy daaj tudde ko mawaahibun nafia fi madaaihi shafia ku koy jàng da nga ca fekk salaatu sitta bi madhi sitta taatihi batta maa tisaa'i at mi juróom-benn weer la juróom-benn weer yi daf ci tagg yonent bi tagg yonent bi mooy wane ko rek ndax soo ne am naa nangam nangam nangam nangam nangam mel ne da nga ëppale nit ñi ñu ne la foo ko jëlee boo joxoñee ki nga ko jëlee ñu bari dana daw wuti ko juróom benn weer yi muy julli ci yonent bi bi de tagg yonent bi di ko wane bi de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla diglee إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما boole koog nag fuñ ne ma fala tegoon tànkam ma jéem faa mépp sama tànk salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maa tisaa yi waxuñu bëgg kese kese wala sopp kese kese ba buñ ko tuddee nga jël satala gu tàng naan ko wala nga jaar ci ay xal waaye nañuy xamee ne bëgg nga ko mooy fa mu tegoon tànkam da nga fay jéem a teg sa tànk ndax kat ñàkk koo fekk jamono téewu ko mën a roy diggante yonent bi ak sëñ bi moo gën a sori fuuf suñ diggante ak sëriñ ci ay at waaye sahabatu rasul alayhim ridwanullahi taala alayhim wa sallallahu alayhi jóge ci weeru koor wala ci xaj makka ay jooy lañ koy gunge aj ji yonent bi mas a fekkee wala aj ajug yonent bi bokk bala ñoo taawi samay wax ñu bari dañ doon jooy soxna Aysa ne ko li ñuy jooy lu mu doon damaa gis ñu génn ci koor gi di jooy génn ci aj gi di jooy ñii di jooy mag ñi toll na ñoom mbaar dañoo def loo xam ne lii dañ ciy def seen diggante seen borom ñu ne ko déedéet yonent bi du la tontu ñoo lay tontu yàlla mi ngi wax ci alquran suratul muminuun walladina yutuuna ma aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun am na ñu def lañu war a def ne nañ ko yàlla digale seen kenn kattan waaye gunge dañ koy gunge ak jooy mooy dañuy ñaw njort bu dee weeru koor la xamuñ dana te xamuñ yàlla nang na ko wala déet su dee xaj makka dim waxoon ne ci ko daa waxoon ne as sawm as wa ana ajzi be wax ca aj makka ne alxajjul mabrur laysa lahu jaza illa al janna xamuñu nangu na wala nangu wut te xamuñ danañ ko fekk waatam déet moo tax ay ay jooy lañ koy gunge kon bu kenn naagu lu way def lu mu bari bari ba nit ñi di ko ko waxalit bu mu tax mu jàpp ne day dem rek tàllal yàlla fay yàlla moom daa mën a segg bokk na ci ay melokaanam xasiib xasiib mooy ko xam ne dara dara dara du ko raw lu mu sew sew lu mu rëy rëy du la ca nax waaye kenn mënut a muusit ba nax ko lu sew sew yàlla na nu yàlla dimbali basaa bu joxoñee rek ñu mën faa jëm te bu ñu fa jëmee it yàlla buñ ci gis suñu bopp te yàlla bu seytaan yebal kenn ñu ko jéem a ñi ko fekkee wutoon daaw yal na leen yàlla yaram ñun ñoo ko fekkee ren yàlla nañu yàlla dimbale bañ fekk ko déwén yaxfirullahu lana wa ko wa li saa'iril muslimina amin